سلامات الله ورحمته وبركات الله وأمداده ونعماء الله وآلاؤه ونفحات لطائفه ومننه دائما سرمدا مدرارا عليكم لا زالت ترمي أزمتها إليكم ولا زالت البركات تترى مجراها عليكم ولا زالت الرحمات تتنزل سأبيبها فيكم وتتدفق أمواجها إليكم ولا زالت السلامة والعافية ترفل ثيابها عليكم أطال الله بقاءكم وزادكم صحة وعافية أينما كنتم والبسنا الله وألبسكم لباس التقوى إلى يوم الجزاء mbokk mu jàll si maa ngi seen mbokk Ousmane si la kaw ko fii ci Arabie Saoudi ñoo leen di nuyu yéen ñëpp di leen ziara ak ndokkeel na ngeen def mbaa yéen a ngi si jàmm bu baax mbaa yéen a ngi am wér man maam si jàmm baax di sant yàlla guddee ba ci alhamdulilah du am rafet njort ne yéen it yéen si jàmm bu baax yéen a ngi sant yàlla na yàlla dolli sant bu bëree bëri ci barke yonent bi sallallahu ak wa sallam ak ci barke noddukatam bi Seydina Bilaal ibn Rabaah radiyallahu anhu ñu ngi leen di ziare yéen ñëpp di leen jërëjëfal bu baax a baax waaw di rafetlu bu baax ni groupe bi di doxee donte léegi-léegi ña xaw fee gëj waaye ñu ngi sant yàlla bu baax nag ñun ñu ngi si jàmm fu ñu toll daal alhamdulilah lépp lu fiy jaar rek yàlla na yàlla def ko muy aw yiw def ko muy tiyaaba te yàlla fay ko bu baax a baax ful ko xam naa ne nag dafa mel ni fan yi am na ñu daan wax mooy booy boobu nekk Arabie Saoudite nga xam ne moom dafa nekk di mariage nekk si bulo bi nga xam ne yooyu ay fooy xale la nga xam ne Sénégal yàlla xéwale na leen ba ñëw na nga ne ab borom xam-xam wala ak kilifa moom nga fekk muy mariage yi def yi xale yooyu <coughs> waaye dogal nag ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def nag te mu nekkoon bokk si man nga ne bokk si seen borom xam-xam yu mag yi waaw ndax bokk na si ñi sës si sudee si waaw mu demoon teewee jotaay boobu nga xam ne nii seen goneeg réew mi moo ko jiite nga xam ne nii mooy doomi buur bi fi nekk te moo dirige gouvernement bi muy foyo yi nga xam ne da ko commencé di tasaare ci réew mi fii maanaam benn programme boo xam ne ni moom moo ko moo leen fa invité woon du moom dong nag du moom dong de du kalbaani boobu dong de ak yenen ci seen borom xam-xam yu mag yu bari bari ak kilifa yu bari waaw yo xamni ni man nga wax ni ñoom ci seen diine ji ñoom ñoko ngank waaw moom nag da caa gën a fës nag moom lim bokk ci ñi jege suudee si sës ko lool bokk ci seen aima yi loolu moo waral ñi jël ko ci noonu waaye du moom dong loolu seen borom xam-xam yu bari bari ñoo ko teewoon ay folo rek maanaam place publique fowukaay la daal xam nga seen gone googu gone ak doomi buur bi fi nekk dafa commencé di maanaam di tabax ay place fofu kay yi demé non dal yo xamné ni pour nit ñi am seen liberté moy yoy tubaab yi gëm rek waaw nit ñi commencé di fo ak ay jaxso goor ak jigéen ñu demee noonu am place bu mu ci doon inauguré nak waaw ñi wax iftitaax inauguré ben place nak bu ko défé nak place bu fofu kay la légui nak yoy lañ fay def waaw légui ay table yu bari la dañ ci tànn kooku rek wane ko way yenen am fa woon kooku moom yoy jappé ko muy dar moom yoy da kay def mom mo fi daganal musique waaw mom néna musique daganal nak diko bour ñom mom lepp mom nak daf ci gëna fess nak mom ndax mom lepp lu lu gouvernement bi soxla rek mom ci changer mu daganal leen ko waaw mo xam lu jëm ci musique la lepp lepp mom lepp lu gouvernement bi soxla rek daf leen koy daganalal si changer ñi kay jema weddi di ko défendar dañ ci xamul dara rek waaw xam nga ku xamul loy défendre moy lan yow yaangi ngi weddi loo xam dara xamoo ci mu jaral la ngay gëñe ko wat te li ngay wat leer na la dara wóoru la ci dara du ci ay deug li lu am la waji niñ ko fatoo ni mu nek yor tax nit fete fenn wala ay affaire par lo bu jaral ngay fenn wala ngay wax lo xamni ni du deug waaw donte ku na xam na ne kurel ga nga bokk ñom fenn yomb na leen lolu bu mu la jaral ngay fenn waaw man nak gis nga lu ma gën ci ay fenn moy saalum saalum buy fenn ndax bu ñëk saalum saalum yi dañ doon wax na ab saalum saalum de mom lu metti metti du fenn te loolu moy wara doon jikko gor nak gor sax mo wurté fenn waaw yow naka ngay gëñee nan li amul nangam di indi ay cadeau yu jàngam ak ay moy jiite sa jàkka ja buy jang alquran nak jang alquran man na neex lool di waaye téréwul mu yor carte yi di bula yore cigarette di tux lu ko neex mu wax ci alquran tan ŋàññi na borom xam-xam yi lislaam yi koku ngeen wax nonu yi ngeen gis ñi wan leen ko ci mu yor carte carte mariage yi loolu mo ci gëna tuuti mom ci bopam daganal na musique bi daganalé musique yemu ci dafa ŋañaale borom xam-xam yi wax na musique dafa aram yépp te sukkandiku ci alquran ji leer sukkandiku way wir borom xam-xam yooyu mu ngañi len ba niru len niru len ak abi talib niru len ak abi talib jublu ci pour lan mana wane ne borom xam-xam yooyu dañoo <coughs> maanaam nirule gi mu niru le ak abi talib pour mana ñom dal xam nga ñom japp ne abi talib bokk na ci ñi gëna delu dellu na ci ñi gëna yees na ci ñi gëna nangam ñom nak suñu misale ku bon abi talib la jël waaw donte lolu ak réer leen ko yobbo sax nak waaw waye borom xam-xam yi nga xamé ni tay fu mu ni euh dañoo wax li wax ci musique nga xam ni moy la ci alquran yi ci aji yëpp lolu dalil mu ci alquran ba minan nasi man yashari lahu la lahwal kom ni ngeen ko xamé ak yenen ak yenen day ci xol ci aji and ak lolu yëpp mom neena dagana musique daganal dagan na kañ la ko daganal moy bu ko gouvernement bi soxla mom lepp lu gouvernement bi soxla fu mu ni dañ leen ko daganal fu mu toll nii même musique même cigarette bu ko gouvernement bi soxla woon léegi mu daganalal ko waaw yooyu du dara si mom, kooku moom day def yooyu mom nag du daganale dara ba pare di ci yem borom xam-xam yi nga xam ne wax lu day continuer di leen ŋàññi ak di len sabat moo mem même saudi fi am na seen borom xam-xam yoo xam ne àndu mom moom dañ ko raddu moo ki kuy wax war nga wax lo xam dal mo gën ngay andak di jàppale ab wahabi yi boo du Albani ab saay saay rek waaw bu nekké ci kaaba gi wala mu nekk ci nangam bi nak wala mu jégué ci si wala mu nekk ci masjid lool du ci dara affaire yi wahabi mo baxut affaire yi wahabi mo laluk say say say say moko lal say say moko mur say say lañ fegal ci côté jor gi say say lañ fegal ci côté chamo gi say say moko ko peeg waaw ya. say saay léppi wahabi moy mooy say say saay say say moy mooy wahabi Mara tax kii ñi jël di wane mariage yi loolu kana lune lu mujj def lu ne wax na ko lu nekk lu ko neex mu wax nee na même politique nii tey fu ko nee nee na même politique su ko neexee maanaam politique su ko jamono laajee politique jël si l'islam maanaam nu ma leen ko mën a expliquer sax maanaam politique bu soxlaa sens dara si l'islam problème nee na jamono moo ko laaj kon politique mën naa sens dara si l'islam waaw maanaam moom fu mu toll nii lépp lu mu wax ne siyaasatul alam kolbaani moom ngeen gis maanaam fu mu toll nii tey bu gouvernement bi soxlaa dara nii loo xam ne nii leer na lislaam daganut ko de moom léegi nee na da koy jaare ci buntu politique pour mu dagan nee na siyaasa bi moom lépp loo xam ne politique soxla na ko si lislaam daal amul problème loolu même bu dagganutoon sax wàllu politique comme politique moo ko laaj te nee na mooy doxal jamono nee na kon loolu day daal di dagan maanaam moom dafa taxaw ci buntu lépp lu gouvernement bii soxla mu daganal la leen ko loolu mooy par loolu mooy kiyam moom loolu mooy liggéeyam moom loolu rek lay def yoonam nekku si nag moom yoonam nekku si naan ay mom dal comme ab xayawaan rek kolbani comme ab xayawaan rek comme ab mala rek même so jëlee ay sar di dugal nak wala ngay dugal ay xisbu yum ak yoy du ci dara wa yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu lu leer yonent bi neena ñooñu buñ jangé alquran da ngay ni yému da nga naan xee kii moo mën a alquran ki mo neex baat ki de mom ni mu jàngee alquran néew na ci jamono yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako waye nak fekk loola ñuy jàng du du jéggi seeni ndénd baat du jéggi seeni xol yi fenn la leen du toll ay saay saay lañ moo tax waaw ñooñu ñooy ñan mooy ñi nga xam ne dañu woote jëmee safara te kalbaani mi ngeen wax gis nga ñàkk xam dong waaye bëri na borom xam-xam yu nekk saw di fii nii dañ ko lim ci ñi woote jëmee safar am na borom xam-xam yu nekk fii ñoom ci seeni fataawaal li ñu doon doon wahabi yu na dañoo limaale kalbaani moom ci ñi woote jëm safara waaw dañ ko lim limaale ko carrément ci wootekat yi woote jëmee safara waaw nit nag soo faree fenn wala nga far fenn surtout nag fa nga far baaxut ndax waxa bi moom boo ci faree tamit yow far nga fii e, asfali saafilin far nga ci taraful asfal yow ca lef ma gën a suufe fa nga far même boo faree sa lef ma gën a suufe tamit na nga doon gor rek nga wax dëgg ndax soo demee ba commencé ci ay fen nag baaxatul waaw même mbokki wahabi yu naam yi nekk fii nii seen masayikh yoy nga xamne ni ñom ngeen gëm def leen ni ñom ñoy yalla ñoy yonent bi lepp ñoo ñooñu dañoo weddi kalbaani ñu ci bari japp ne kalbaani ci ñi wote jëme safar te ñom dañ koy wax ñak xam nak lu xew fi ni mo waral nit di jël di défendre ak di genn ay ay alquran wala di genn ay sar alquran loolu de dara mën naa jàng alquran wala neex na baat loolu dafa tere mu wax dem yor ay carte loolu moko yor moko ko ci loxom nonu waaw ak di soñu ñooñu waaw moom yooyu moo ko def ñoom yooyu ñoo koy def léegi nag seen gouvernement bi dañoo xam ñoom suñ bëggee daganal yi ku mel ni moom ak borom xam-xam yu demee ni ñoom la ñu woo ñu ñëw teew fa suñ fa teewee ñu wane leen nag bu ko defee pour bu leen population bi gaaw dal seen kaw waaw maanaam bu fa borom xam-xam yooyu teewee maanaam borom xam-xam yooyu day mel ni ñoom ñooy sauver gouvernement bi pour bu population bi gaaw a yeew ci maanaam di dal si kaw gouvernement bi wane ne gouvernement bi dañu caaxaan. légui gouvernement bi ñom ñooy organisé bu paré way borom xam-xam yi lañu ñëw tek ci kanam ñi jàkkaarloog population bi ñom ñëpp ñi leen gis ñi yor carte yi waaw yor mariage du mom dong de ay borom xam-xam yu bari ci seen borom xam-xam yi ay kilifa yi fa téwon parce que dañ leen fa invité ñi téw fa waaw mom nak position bi mu nekk motax gaay di ko si wanee nii ak mom limu bëgg yoy toujours muy daganal rek buñ né musique mu daganal ko bu né politique lepp lu mu soxla ci ci l'islam amul problème manam politique bu soxla dara rek ci l'islam loola mën don donte xaraamoon na sax politique bi mën naa tax mu dagan bu ko defee nag yooyu nag bu fekkee ne tey seen gone gi seen buur bi tey nga xam ne jox na loxo jigéen sax ñu ne ah loolu politique àddina moo ko laaj loo wax mu ne siyaasatu alam moom foofu la koy jaare rek lépp lu mu bëgg a daganalal gouvernement dana leen ko daganalal waaw yeneen borom xam-xam yu koy tontu nag daanaka ñoom dañ koy tontu nii waaye daanaka ñoom duñ leen du leen faale sax borom xam-xam yu nekk Arabie Saoudite di tontu nii du leen faale sax parce que mom xamna ni limi def mo neex gouvernement bi waaw gouvernement bi mom ku mel ni la bëgg ko xamna ni day taxawal rek lepp lu mu bëgg a woyefal mu woyefal ko nak te du yem ci woyefal ko ci ay feni bopam rek de waye day indi ay ay alquran lu ne mu dugg samat non la koy defé kalbani lool lay def motax mom da moom daanaka boo turam bi lool rek kalbani la rek mom dal so so jëlone ben kalbun pilisaat si benen kalbun rek nga jox ko ko mom dafa taxaw taxaway ñaari kalbu dal mu ngi non dal mom dafa taxaw taxaw ñaari kalbu rek yàq gu bëna bon bon lay def fi nak di defal gouvernement bi waaw lolu nit ñi xam nañ ko borom xam-xam yi nekk fi ñoko gëna xam sax waaw yeen xamul leen ci dara borom xam-xam yi nekk fi ñoko gëna xam ngay dem di indi ay suratul waqi'a suratul maharij borom xam-xam yi nekk lo ñoo la xam di te xam nañ ne ñoom ci limu wootekati safar yi lañ koy limale waaw seen borom xam-xam yi nekk fi bari na ci borom xam-xam yo xam na ni ñu ngi fi man sama yoon nekk ci ñom faalewu ma leen lijjanti ma leen ay wahabi lañ waaw waye ñom nak dañ koy lim ci wootekati safara waaw donte ñom ñepp ñoy yam wahabi yi ne ñoy yam ñom ñepp safara lañ ñi wote jeme waye ñom li ñi yem yem yem am ci ño ne nak ñom ñom ño dess ci gannaaw waaw ndax bu ñepp boné timit dana am ko xam ne ñepp ko gëna bon ke ñepp gëna bon nak mom man na taxaw di critiquer yenn donte si bu bon bala bok sax da wahabi yu ne ñoom ñëpp ñoy kep yam waaw ñoom ñëpp safara la ñuy jëmee nit ñi waaw ñoom ñëpp ay doxaatun ila nar safara kep la wote jëmee nit ñi waaye li ñuy wote wote jëmee safara am na ci ñenn ñoo xam ne nii danañ taxaw leeral ne kalbaani mi kat day wote jëmee safara waaw ku mel ni Cheikh Nasir Omar ak ñi demee noonu nga xam ne nii ñooñu bari na ci seen masaayax ñoo xam ne ni dañ koy dajji carrément wane ne moom si ñuy wote jëmee safara la bokk waaw am na si détail yoo xam ne nag du ma ko tudd waaye daal mu ngi noonu wootekat yu jëmee safara la wootekat yu jëmee safara la mariage boobu ngeen gis nag moom moo ko yor <coughs> dafa am benn benn immigré buñ doon benn kii buñ doon immigré fii fowukaay la waaw la daal buñ doon immigré gouvernement bi nag ñëw ko liggéey bu jaatu bu rëy la léegi nag moom fa la toogoon noonu yor mariage yi noonu waaw loolu du lem du suukar mariage la di jukki alquran tamit nag donte yéen fi gën a mën a lépp lu lay neex ngeen ne lii sunna la wala lii alquran la carte mariage yooyu mënu leen fexe ba mu doon jukki alquran loolu mariage la waaw beneen bi mooy moom daganalal leen na musique te bu dul loolu sax moom da moom li mu daganal dafa bëri moom lépp lu gouvernement soxla rek mu daganal ko simli sans léegi mu daganalal leen ko mooy yoonu nekk si kenn waaw dem nak di indi ab audio bo xamne ni da ci jang alquran wala da jojo joojoolu yooyu moom taxawut waaw dakwanti wut ak dem jël mariage bi def ko ci ay loxam li ñepp di gis lolu mom moko def waaw daganal misik def leneen ak leneen ak leneen lepp lu gouvernement bëgg mu daganal la leen waaw amma dem di indi ay affaire yi alquran mo jang sar yi wala mo jang ay bi joojoolu mom ñom man nañ ko waaw dem di joojoolu yalla nag waxut ay joojoolu yoy yalla joy yi mu reconnaître ci jangum alquran mo joy yi xol bi ñëk def waaw bu xol bi jooyee ba sonn nag xol bi mënatu koo téye bët yi génne ko bët dong loolu dong lay jariñ waaye bët yi waxuñ la nga dem nalu jooy indi ko si bët yi te xol bi jooy yàlla li mu waxoon ci alquran leer na mooy li soxla mooy wajilat qulubuhum ñooñu nga xam ne ni wajilat qulubuhum seen xol yi mooy njëkk a jooy seen xol yi mooy njëkk a aalu ci yàlla seen xol yi mooy njëkk daanu bu ko defee nag bu demee ba xol yi mënatu koo téye nag mu bëtt daal di ngeen ñëw ci bët yi nag bu ko defee olof yi ne bët loolu dong la bët duhut ne ronko ñu génn ci bët ngay joojool di ŋaarale ci micro yi ñu naan moom bu jàng alquran day jooy yàlla soxlawut loolu yàlla lim soxla mooy xol buy jooy waaw bu xol boobu jooyee nag ba mënatut a téye boppam mu bëtt nag su bëttee nag foofu mu jaar olof yi tuddee ko bët mooy dafa bëtt génn moo tax bët représentant xol dong la mën a doon mu am sens waaw waye nak su fekke ne beut bi dafa ñew di joy ñepp di ko gis wala ñi deg mu yuuxunu te fekk joy ti beuk ko ci xolam joy yo xamne so soo dem ni musique dafa araam dem téye carte mariage yi politik lu gouvernement bi bëgg nga daganal leen leen ko nga ne politique man na sansé l'islam politique bi ni muy doxee ci adina man na sansé l'islam wa parce que gouvernement bi bëgg nañ ko lepp lu gouvernement bi bëgg nga ne ay accord yu signé digënté réew réew wala nangam lepp lu nee la politik lu politique soxla rek nee amul problème bu ñëwé politique man nako daganal waaw lepp lu politique daganaan lepp lu politique soxla rek neena bu ñewé ci l'islam umu problème l'islam lam tégon ak la l'islam rëddoon neena na dañ koy tégg ngir doxal politique parce que neena na politique moy tax adina bi dox koku bu so déggee muy joy da nga xolam ba nga joy ku xolam di joy koku dana ñëw di dagana lu yalla harama ku xolam di joy dana harama lu yàlla daganal ku xolam di joy dana top ay nit adina lepp luñ bëgg mu dagana la lenk yow xamoo si moom dara nga dem di indi ay saar naan saar yi moo ko jàng moo ko jàng nangam nalu jooy ñoom dañ koy def nalu jooy moo tax saydina abu Hurairah radiallahu anhu da doon muslu ci loolu sax waaw maanaam toroxlu gi ñuy def nga xam ne ni seen saaxib bi dong mooy toroxlu seen baatin bi moo ne fettet seen baatin baa nga waaw korong ñu weñ seen baatin bi toroxlu seen baatin bi dafa waaw korong loolu saydina abu Hurairah radiallahu anhu dafa ci doon muslu te loolu nit yàlla bu yeew bu ne dañ siy muslu xam nga ah, ki ni soko dege mu jang alquran nga defene ki mom ah yalla ñu yalla musal ci ñu melni ñu melni nak ñoy wote jeme safara motax tax bi sallallahu alayhi wasallam wàccoon ak ñun de yonent bi mom la ko yalla yoonon jetal nako ba mat sekk te yeenañu bañu ba nak yeewu ñooñu ñoy dàq jang alquran fi ni buñ jang alquran nga yéemu nan ki ki mo dàq jang alquran nanga way ñoo gëna a kàccoore janax coy ñoo gëna a kàccoore coy de waaw ah, bu yewon gën xam ko motax ñom ñepp ñoo ci yam nak su dey so kalba nek ñom ñepp kenn du ci dara ay saay-saay la ñom ñepp ay janax ci leen tan lolu bu yeboo ñun ñepp ngeen xam te as-sakitu anil shaytan al-akhras shaytan bu lu képp moo nekk ñooñu su dey ci mu ngeen gis yenn yi day kalba ni mu wax mom mu nopi waaw léegi mu baye kalba ci mom mu wax mom mu nopi nak bu ci wax pourquoi mom bu mu wax mana day da fay jël ki def ko muy portée boo xam ne ni mom su waxe mu noppi legui noppi gogu saxal la ah legui mom noppi gogu saxal parce que mom su waxe day fess bu mu upp mom nak day baye kalbani say say bi mu wax bu ko defé mom mu ne patt nak ciel lu ci wax sax lu ci jëm wa loolu lañu jaar ba dagana lepp lu yalla xaraamal motax l'islam ñom nekk du dara wa dañu nekk fi di naxante rek ay ci topale rek lañu nekk wa yen ñi nga xam ne nag da ngeen nekk ay africain wala ngeen nekk ay sénégalais ba pare bëgg waaye di ngeen am ay kilifa yu baax ay nit ñu baax ñoo xam ne nit sunna lañ yàlla képp a leen ñor yonent bi sallallahu alayhi wasallam képp a leen ñor alquran rek moo nekk seen liggéey guddeeg bëccëg ëllëg ngeen jël ñooñu def leen ay référence waaye ngeen jël ay kalbu nag ñaari kalbaaneeg ñooñu ngeen bëgg a jël def leen ay sëriñ def leen ay référence képp ku ko ci def tardé nga àddina ak àllaaxira te boo dajeeg yàlla doo fa am benn lay waaw سلامة الله ورحمته وبركات الله وأمداده ونعماء الله وآلاؤه ونفحات لطائفه ومننه دائما سرمدا مدرارا عليكم لا زالت ترمي أزمتها إليكم ولا زالت البركات تترى مجراها عليكم ولا زالت الرحمات تتنزل سأبيبها فيكم وتت